Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat-du6edu.sn, téléphone au plus 221, 33, 991, 00, 68 ou au 77, 460, 16, 09. ñi nga am mbégte ak comme ni ñu ko defee chaque jour rek di leen toppal làmb ak li ci biir gis ngeen tey nag ñi ngi ñëw fi nga xam ne mooy Pikine c'est si doomu Pikine mi Alaaji Mbay gis nga tey mu euh, woote fi ndog moom ak mafia bi di boobale gis nga tey li fi xew ginnaaw ndogu lañu pare nag dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñu suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Alaaji Mbaye siyaar naa la. waaw ñu ngi lay fay salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ñëpp ñi nga xamante ni nii ñoo fi nekk di leen nuyu yéen di leen maasawu ndax boobu ba léegi yéen a ngi fi di sant sunuy ñaari waajur di ñaanal sunu papa yàlla bàyyi ko fi di ñaanal sunu yaay fi mu nekk yàlla xaare ko ajana ak ñam fa fekk ak ña ko fa fekk mm-hmm. di ñaanal ñëpp. di ñaanal jëwrin bi nga xamante ni moo sañ ci kafe gi di jiit ci kafe gi muy njaga géere di ñaanal équipe bi fi nekk yëpp waaw booy man ak ñoom ay moroom lañ waaye man seen mag laa ku ci mel ni liilu demba jamaama priorité laax waaw ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw di ñaanal gaay yépp daal di leen bëggee mhm. Euh, secret Aladji mbay ci biir Pikine tey nañ la fi fekkee macha allah ñëpp génn ànd ak yow sa secret ci biir Pikine lan la tey. waaw secret Aladji mbay amul secret parce que secret mooy euh, ki nga xamante day nëb boppam wala ki nga xamante ni day puus boppam ci ci ci ci ci askan wi. Mhm. man toujours pour ma sentir ni man maay Aladji mbay rek mooy bu ma nekkee ci biir gars yi fii. Mhm. fii laay sentiree sam bopp moom la la Cheikh Samb doon wax sànq. Mhm. xam nga di ñaanal tamit ñi nga xamante ni ñoo sancoon café gi te heure bii. te ren fekku leen fi daaw fekku leen fi di kenn rek muy sama mag ki nga xamante ni moom ma dugal cité police man ndax cité police daanaka fii laa juddoo ndax buntu kër gi ñu nekk mooy buntu kër Paalin saar man bi ma juddoo daanaka ba ma génnee sunu kër fii laa njëkk fii fii lañ ma indi hmm. waaw muy coloré sama papa da koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana moom boroom kër gi hmm. di ñaanal sunu rakk bi fi nekk feebar yàlla yëkkati ko ba mu doxee ay soxlaa muy jibi hmm. xam nga di ñaanal sama mag bi nga xamante ni moo ma dugal cité police tàggat ma muy Mamadou Ngom Allo. Mhm. di ko ñaanal bu baax yàlla xaare ko àjjana. Mhm. waaw Alaaji Mbaye ku ko xam euh, ñu gën ko xam à 100 pour cent biir làmb. Mhm. lan moo la gën a poussé ba nga dugg biir làmb. waaw làmb li ma si poussé mooy dama judd fekk si koñ bi. dama judd fekk mu nekk koñu champion. dama judd koñ boo xamante ni Falaye Balde fii la dëkk xam nga. Bisil Balde Papa Balde. ma den ak ñoom benn kër daanaka saf ci kër googu lool lool lool lool. Mm-hmm. dem ba bokk fa. Mm-hmm. xam nga loolu moo ma dugal ci làmb. moo gën a poussé ci biir làmb. Mm-hmm. kon mën nañu na gën a poussé nga nekk ci si. waaw parce que carrière bi yëpp ñoo ko defandoo. Uh-huh. Ama mooy midi ñun ñooy une heure. waaw que ñoo defandoo lépp. xam nga. Uh-huh. waaw juddandoo yarandoo. màggandoo. xam te loolu c'est pas donné à tout le monde. Hmm. parce que nit dina forcer relation. jóge koñ bi dem koñ bële pour uti xarit. Hmm. mais Yalla bu dogalé yeen ñëpp fi ngeen dëkk fofu ngeen juddoo koku programme suñu borom la. Hmm. koku Yalla mo xam def ko dal uh-huh. wa diko ñaanal Yalla defal ko jamm bu baax a baax uh-huh. mais bi dañuy gis bi ngay and ak Ama Baldé dafa mel euh, lamb ji intéressé wu à 100 nek cent à 100 intéressé wu manam li la gën intéressé moy fu Ama taxaw nga taxaw fo défendre ko jappalé ko diko diko diko jappalé ci lu bari bari waaw parce que làmb moo demee noonu. dañ naan àdduna groupe boo gis day am njiit. ama yàlla dogal na ñun teel lañ xam ni moom mooy mbër bi ñeneen ñi ay bëreekat lañ ku ci mel ni man man bëreekat laa. bëreekat nga ah. moom mbër la. Mhm. comprendre nga. Mhm. kon xam nga bu ñu juddoo ci loolu ñun dañuy fexe mbër bi euh, li mu bëgg a jot moom ak lim fi mu bëgg àgg ci làmb mu àgg fa. bëreekat yi nag. waaw ñoom mën nañ di bëree di nekk ci li ñu war a nekk parce que man maa ngi ci moom maa ngi ci maa ngi ci plan yëpp ci showbiz bi waaw mën naa yéeg sur scène wax mhm. mën naa bàkku mën naa bëre mhm. mën naa waxtaan mun naa lépp mhm. parce que loolu mooy objectif bi objectif principal bi nag mooy gunge woon ko moom ba mu nekk roi des arènes incha allah mooy objectif principal bi oh, hmm. loolu mooy objectif bi hmm. mais dañuy gis euh, laaj mbay bëre ngi ci moom mais dafa mel ni farataalu ko à cent pour cent lan la si bëre dégg mooy li ma la wax sànq farataal naa ko. mais alaaj dafa nekk nit boo xamante ni nii euh, dama juddu. commencé xàmmee am ay charge yoo xamante ni dafa tegu sama kaw. waaw bi may am 16 ans quinze ans. ñii ma toogal yëpp xam nañ ni. man bëre dama ko mën. Mhm. waaw mais boo demee ba war a yor sa bopp. ak yeneen ak yeneen àdduna yoo xamante ne ay mbiru àdduna la mhm. c'est obligatoire faa mu am doo jël bëri rek def ko muy muy muy muy liggéey bi quoi da ngay xool foo xamante ne mën nga fa lijjanti sa bopp rek danga nga fay jéem jéem a ubbi buntu boobu quoi mhm. parce que yàlla waxul kenn dara mhm. mais est tamit euh, alaaji visé wul ci loolu à ba xaw a fàtte bëre tuuti non fàttewuma bëre MCS international études et formations à l'étranger vous êtes élève du terminal bachelier ou étudiant obtenez votre admission dans les universités françaises américaines ou canadiennes grâce à MCS International vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger contactez-nous vite au 33 868 69 28. des day xaw a yéex a day xaw a trop boo amee tey balaa nga amat yàlla xam. waa loolu di koy indi mooy damay focaliser wu ci liggéey bi man liggéey mooy gën a nekk sama priorité. que bëre waaw liggéey. Hmm. di teg ay projet waaw bu sottee baax na bu sottiwul bu sottiwul baax na lépp yàlla moo koy àggale xam nga mais bëre bi dafa nekk ci man. Hmm. mooy fii ma toog nii nii nii boo ma songoon damay bëre. damay bëre waaw ci man daal. <laughs> waaw ah. waaw moo tax def na ñaata combat. def na cinq combat. cinq def naa deux trois victoires de défaites. Adama Diouf moo daan ak ak jëf jël ak jëf jël. Hmm. nga daan kan ak kan. ma daan Kécop. waaw daan bu euh, Gàmbi. Balla bu Gàmbi daan Wuli. ak daan Wuli. sa diggante Kécop naa ci ñëw. Hmm. yéen ñaar avant mooy dugg si milieu làmb sa diggante ak moom lan la. boo leen dajante ñaar. ni muy demee règlement de compte la wala qu'est-ce qu'il y a. non <laughs> sama diggante Ketchup bëre rek la. Uh-huh. waaw bëre bu ñu daje woon fii léegi léegi maa moom dañuy ambiance foo mm-hmm. def li ñu war a def. Mm-hmm. mais làmb foo la mais ku daanu rus. daanu rus waaw. Mm-hmm. foo bi yëpp na dafa am fu muy yem parce que moom dafa pare pour daan ma. man dama pare pour daan ko. comprendre nga. loolu nekkul lu ñuy maye nekkul lu ñuy saraxe. waaw parce que doo yab benn benn nit bu la bëgg jar na daw ba dee. waaw ngir kon kooku rek jar na kenn ki la bëgg rek jar war na tax. so taxawé sa adversaire nga def full ak fayda. def full ak fayda. Mhm. ñu gis ngeen bëriwoon yi ñaar bëre bu yag ta neex. Mhm. ba gars sax per ba gars sax ma ngi ñu au passage. Mhm. mu joomi ci yow ndax bëré bi nga bëré sa digënté ak Boucher. waaw xam nga bobu dafa nek man sama premier combat. man ke job la ñëk bëreel. moy sa premier combat waaw moy sa premier combat. fekk bobu mom def na ñaari combat. comprendre nga. bi bëré euh ñu bëré ma mom 20 minutes. biñu bëré 20 minutes arbitre woo ñu nañu. boo leen bëriwul damay tas combat bi. Mhm. def ko masinil te man bugguma masinil. ci laa ñëwee accéléré combat bi di ko dóor laaw mu daw sori ci man torop ma tëgg ko mbot. Mhm. xam nga daw di bëreeg moom muy may sées ma lonkol ko comme loolu ma la waxoon keroon rek. <laughs> waaw muy lu rëy. waaw lonkol boobu bi nga koy daan. Mhm. xale la xel mi matul à 100 pour cent doole ji ñëwul. dafa duñ ko may visa mu ngi ci ngembali xel baa ngi ci États-Unis moo tax nga daan ko. waaw loolu ay waxam la rek. Eh. waaw ndax boo paree sa làmb ànd ak waa géejawaay yëpp ñëw. Mm-hmm. ma bëri loolu vingt deux minutes daan la. Mm-hmm. nga naan ay sa xel nekkul woon ci làmb yow sa xel bu nekkee ci làmb xanaa da ngay fanaan ci arène bi. waaw waaw léegi nag le quinze incha allah dinañ bëriwaat. le quinze mai combat bi taxawaat na. Mm-hmm. dem na États-Unis. bouse bi xamoon ci wàllum euh, développement ci yaram. am na changement par rapport ak Alaaji Mbay bi ñu bi ñu fekkaat tey mu toog fi Pikine foo toll après lamb dañuy business yi. Hmm. dañuy nekk suñu yeneen activité làmb jaraluñu ñu jël benn comprimé pour yokk suñu yaram. Hmm. jaraluñu ko. Ah. comprendre nga. moom nag jël comprimé waaw làmb jaraluñu loolu. dañuy nekk ci li ñu war a nekk. Hmm. yaram bu ñu yàlla jox. incha allah ak xol bu ñu yàlla jox incha allah loolu la ñuy indi. waaw sañ-sañ bi nag da nga koy waaw judduwaale jom da nga koy judduwaale. loolu nekk lu ñuy jaay ci ay buffet wala ay quincaillerie. comprendre nga waaw. <laughs> le 15 incha allah. sa digganteeg Boucher le 15. sa diggante ak Boucher la 15. nee na moo la doole moo la dàq bëre. waaw Boucher bi ma koy daan sax moo ma bon doole. moo la bon doole waaw moo ma bon doole man yàlla dafa dogal. Mhm. xam nga waaw nekkuma nit yu ngand yooyu comprendre nga. Mhm. waaw ci li ma war a nekk dama ciy nekk. Mhm. comprendre nga. bi ma koy daan tol noonu ko neex ma daan ko. waaw ñëwaat na daf ma koy gën a yombalal rek. comme que gën di waaw ànd la 15 yàggatul incha allah. nee na bi dis na bi baax na. am na leen lu wax sax loo waxul. Ah, ndax nee na promoteur yi moom lay jàppale. waaw moo gën waaw promoteur bi moom lay jàppale. ah yooyu yooyu yëpp wax na ko. waaw waaw le 15 nag incha allah. Hmm. waaw man li ma war a jëflanteek moom incha allah yooyu yëpp da ciy bokk. Euh, kële bi nga ci. laa illah Bousse maa ko mën mille fois. soixante dix mille fois bokkul. <laughs> Euh. catégorie yi moo bokkul Bousse man ak moom. mais Bousse ndaanaan la de. waaw ndaanaan la man mi ko daanoon lan la. waaw yow super kenn daa waxati loolu. <laughs> super nga. kenn waxatul loolu. <laughs> Eh, léegi dégg nga li wax lépp daanaka le quinze ñoo na ba pare. waaw le quinze ñoo na ba pare. Mhm. moom woo na ñi muy woo ñëpp pour ñu jàppale ko man nag ñi ma am xam leen ñoom laay woo mhm. ñi nga xamante ne nii bu mettee damay nekk ak ñoom bu neexee damay nekk ak ñoom mhm. comprendre nga di ñaanal ñëpp jàmm di woo Xaarim Jaañ bu baax a baax si combat temps ngay woo kenn. Mm-hmm. Eh, mi ngi tombé ak wéru koor nga nek ci préparation est ce que bi mooy c'est la première fois ngay préparer mbeur ci wéru koor. wa suma djumul hmm wa mais ma wulli tamit ma wulli ma wulli fekkon na koor. combat bi muy taxaw koor la woon. mama mm-hmm. mm-hmm. bi entraînement bi nak lay démé par rapport ak budul koor. wa bi entraînement da ngay def rek bo ndogo pare nga dem géej. wala bo ndogo pare nga dem saal. xam nga contact wala nga daw. arrière yoy ngay def ah. yaangi wor si maa ngi ci koor gi moom. non damay gis bëri des fois bu ñu amee combat capital sax di ñu bañ a woor. non man moom damay woor moom. Euh. man moom xanaa xanaa li ma weesu. Hmm. waaw daan naat sa maam moo ma yar. waaw ma koy ñaanal yàlla ko yàlla may fan wu gudd wér gi yaram. Uh-huh. xam nga di ko ñaanal di ñaanal ñëpp ñu ñaanalal ma ko. Hmm. mu gudd fan sama maam Maane ak sama maam Maguette Fall comprendre nga. Euh, daan naa da doon jaay ci mbedd mi ay màdd ak yooyu noonu ay mango waaw bi ma daan bi ma daan bañ a wor daal mooy bi ma daan këf ci mango yi di dugg ci biir kër gi di ko lekk mais léegi moom comme que xamee naa yor soxna yor doom waaw dama wor moom. mais bu su ne daa daa fas yéene jëflante yow duma la ba àdduna di la bàyyi ba àdduna di la reetaan. man trois personnes mënuñu ma man boo bëri seeg man ñaana yàlla daan ma mais bul ma xalaata duma. waaw foo teg damaa am jomi jomi jomi xeex dama ko am. da nga koo am waaw. dama am jomi xeex ndax gars yi ñi ngi xaar sa bol ak Boucher comme maanaam boo daje ci plateau ni muy neexee foo leen daje mu neex ndax ñi ngi xaar la 15 arbitre génn seen diggante ngeen def lu àdduna di waxtaane waat waaw kooku ci moom rek lay des hmm. kooku ci moom rek lay des de ah. waaw ndax man moom bu soobee yàlla incha bu arbitre sifflé génn sama diggante ak moom da ngay dox ci man li def dama koy def hmm. waaw wala nga xaar non ça dépend hmm. ça dépend ci li ji laaj waaw maa ngi dégg gars yi ñu ne est seen diggante ñaar du am combine. du am du am combine quoi. combine mooy. Hmm. combine sa diggante ak ah. combine bare quoi. ñu pour bëgg ku gañe waxuma laa ñuy taxaw di dóorante. Euh. yow mi boo sañoon sa site bi benn site du ko raw. waaw man léegi dama bëgg buusa raw ma. Hmm. dama bëgg mooy daan. Hmm. man ma daanoon ko war ko daanat. nga naan ma yow yaa tal yooyu man tur boobu du jaar sax. ma man loolu xaw ma ko sax. yaa ngi soog maa ngi soog a may revanche waa. Mm, ngay soog a may revanche ak euh, sa premier combat ak boo koo xam tamit yéen a ngi soog bëri différence bi xaw na diis wala xawul diis. no xawul diis parce que pression bi daanaka ci moom la yëpp. Mm. waaw parce que man maa ko daanoon. yaa ko daanoon waaw moom mooy jël si revanche. Mm-hmm. waaw mm-hmm. te moom li mu wax man waxuma ko. wax na woo na ku ne. Eh. ku ne woo la. ku ne woo na ko dugal na ay Pape Diouf ci làmb jeeg. waaw ay Ndoura de ku ne la dugal ci làmb ji. ku ne mm. ku ne ku ne. waaw man nag ñi ma am. dama leen di teel a woolu mel ni midi nag laa lay wax waaw xaadim Diagne gauche droite dama leen di woo baaba baax transport mhm. sama xarit boobu maa ngi koy woo di ñaanal jabaram mbenn ak ah. jabaram bànna xam nga mhm. di woo prince Koumé bu baax sama xarit sama doomu ndey nit ku baax xam nga di woo ñëpp ñi nga xamante ne nii Pikine la ñu dëkk mhm. pour ñu jàppale ma ci combat bi parce que buuseen nee na moom xaalis ah. moom ëpp jàppale te promoteur yi moom la faral yooyu nag bu ko nit waxee. Mm. man combat bii maa ngi leen di sàkku ñoom ñu jàppale ma. Mm. pour ma waat ko daanaat ko. moo gën mu ne daan da ngay bëre MMA. ku daan ku daan ci combat bi da ngay dem MMA. non combat bii rek loolu la ñu waxoon combat bi rek dañoo waxoon maanaam moom ci case yi lañ koy bëre. ci case yi waaw promoteur bi loolu la waxoon. Mm. mais après bi ma wooyee moom nit ku baax la ma koy nuyu au passage moo gën xam nga. faral nag moom ah. ak Pape Souley Pape Souley. ak Pape Souley. xale waaw Pape Souley waaw. xam nga ñoom ay nit yu baax lañ pare nañ pour def lépp li nga xamante ni moo war ci làmb ji. Mhm. xam nga mais leen rek laa leen xaw a mere mooy faral bi ñu faral buuse. dañoo loolu moo dul yoon. <laughs> mais nag fi ma koy jeexalee mooy dëgg bi nekk ci yow macha allah lan la parce que gis sa nga fente benn way jox ko Alboury dëgg boobu yow lan la. waaw non loolu loolu man man man daa man man daanaka ay ay rab ay rab may wax loo. ay lay wax loo. waaw waaw ndax mënti mënti ma njóobaku mbaay sama maam. mënti ma njóoba ba njóoba kumba ma njóoba kumba da ngay togg ceebu ginaar dugal ci biir xàmb yi génne ay yàq man neexumaa jàpp déggoo ma de <laughs> damaa doy waar leelu dee na waaw xam nga nit <laughs> euh. xam nga lu gën a doy waar doomu aadama hmm. nit tàggatal sa bopp ba yéene ñëpp jàmm dëgg la boo tàggatee sa bopp ci loolu hmm. tàggat sa bopp ci fair play hmm. tàggat sa bopp ci mën a toog ak ku am ay milliards. Mm. tàggat sa bopp ci ku mën a toog ak ku yor cent franc. Mm-hmm. rek jàpp naa ni sa àdduna boo ko suukaree mu neex. ndax li ci des métteetul. Uh-huh. man képp koo xamante ni yaa ngi teg ay jéego pour jëm ci kanam maa lay ñaanal ci li nga nekk yàlla defal la si jàmm. sa yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police numéro de téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nak dañuy ubi du lundi au dimanche ah dama ne kon nak bo bëggee ay kar yu bax dawal gaaw séti wa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk fofu ci parcelle Assainies ci marché police établissement Khadim Rassoul ndaway ndaway ndaway say alay katim kam mangala